Eh, noo ngi amaat mbégte tegaat ak yéen ci jataay bi nga xamante ne bi baaxoo nañ ko di ko eh, toog ak yéen saa yu weeru wolof amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent tey jii nag di altine yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru safar ginnaaw boo xamante ne bi commission bi nga xam ne mu ñooy séntu weer wi te seriñ Serigne Modou Mamoun Boussa imam jiite ko ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma waaye feggoo ak Serigne Abdou Diop imam mi nga xam ne moo yoree kaddu gi ñu di ko baaxoo weer wu ne ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent ñu di ko séntu waaye nag di ko ànd itam nag ak Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Abdoul Khoudous nekk ca Daarul Moxti dox suñu diggante ak waati Tiwaawan waaye di ko ànd ak itam Serigne Modou Mbacke se mi nga xam ne moo jiite mboolem représentant xalif général des mourides yi ne ci région yi ak ñi nga xam ne ñoom lañ baaxoo di jokkool saa yu weer ak fii Euh, tey jii nag la altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ba ñu noddee timis ba julli ko ba sëlmal booba tey ñu ngi ci buntu soow bi nga xam ne moo jàkkaarloog baaba kar Babacar Kébé Ndiouga euh, di ko séentu ànd ko waa Muxaddamatul Xidma léegi nag ñu bàyyi leen ak sëñ Abdou Diop mu leeral leen li nga xam ne moo roose fii ci jumaa ji. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaye ni ko Cheikh sëñ fa Galass si lay waxee rek ni ko baaxoo def def nañ ko muy sëñ bi dana yebal uh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne ci jumaa ji ngir ñu yéene fa wax nañ nañ séentu weer ci loo ci waaye xam nga ñëw yégle ko bu ñu defee noonu ba ne danay génn ci fii mu wax muy uh, télé bi nga xam ne moo jàkkaarloo sow ci uh, ñi di wax tudda télé Alaaji Njuga Kebe di séentu weer wi ak di taatan xibaar yi ci gox yi bi ñu jekkee ba nëgë ni nag nga xam ne taatan nañ xibaar xibaar yi ci gox yi téléphone yi gox yëpp ci ci Sénégal Euh, ñoo ñu wax ne ñoom fenn gisuñ ko fa fenn booba dañ daal di jokkoo kër Cheikh Mouhamadul Mountakha yëgal ko ko ba mu wax ne kon ginnaaw noonu la demee nag kon nañ yëgle ne suba mooy mottali weer wii nu nekk kon kon ñaar fukki tey la ñaar suba mooy fan weer kon ñu xam ne gaaw mooy benn fanu gàmm àllarba àllarba mooy mooy mooy mooy benn fanu gaam gàmm gàmmo gi nga xam ne gaaw kon mooy door doon bisub bisub gàmmo gi di li wit ci weeru weeru tubaab kon weeru waaw ci weeru weeru octobre léegi kon ñu xam ne ndoolu lu sax sax na ci mboolem réew mi yëpp nag waa fépp jokkoo nañ fa fu ñu fa war a jokkoo rek waaye fenn fu ne gis nañ ko amu fi kon noo ngi gën a sant bu baax a baax te ñaan suñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér te it nuy ñi ñuy jàppale ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñaanal rawatina waa mu Muxaddamatul Xidma ndax ñoom bu waxtu wi jotee ñoom it dañuy dikk di jokko ànd ak ànd ak noonu jokkoo bi ak lépp. ba ban ban toll fii ba loolu kon noo ngi leen di sant bu baax a baax ak suñ Fallou Galass Syll la ñoom ak mbooleem rajo yi rajo rajo université bu Cheikh Ahmadou Bamba ngi yëpp kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon mbokk yi ñu xam ne rek tey jii di altine eh, àllarba mooy doon benn fanu weeru gàmmu ñu jàpp ne kon gàmmu gi Euh, fukki guddi yi ak ñaar mooy dëppoo ak euh, gaaw di fukki bëccëg ak benn di la huit incha allahu rabbi mooy doon gàmmu gi ginnaaw bu nu jokkoo ak région yëpp nag jokkoo ak suñu représentant yi ni ko baaxoo di ko defee sëñ Bachirou Mbacke sëñ Abdoul Khoudous ñu di ko sant bu baax baax ci taxawaayam digganteem ak sunu diggante ak waa Tiwaawoon di sant seriñ Modou Mbacke si ci suñu diggante ak région yi nga xam ne ñoo fi nekk waaye jokkoo ak commission bi nekk Dakar ak yi ci aju yëpp rek ñoo xam ne kon amut fenn foo xam ne gis nañ fi weer wi ci région yi ginnaaw bi nag la sëriñ Abdou Diop woote ci kër sëriñ Touba Cheikh Abdoul Mountakha sëriñ bi xamal ko ne ko kon nañ jàpp ne àllarba mooy doon benn fan incha allah rabbi ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen joxaat daje ci waneen weer wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.